du ma leen mukk leneen la duma leneen mukk nag leneen la ndax li ma am ndax li ma am loolu moo ma ko may loolu moom ma ko may sëriñ Tuubaa bu weesu loolu bu weesoo loolu damaa gëm mouridisme damaa gëm mouridisme dama ko gëm dama ko gëm mas naa ñëw siyaare ci sëriñ Fallou nee na mas naa ñëw siyaare ci sëriñ Fallou maa ngi ànd ak suma benn xarit di professeur américain mi ngi ànd ak benn xaritam bu doon professeur américain. ma présenté ko sëriñ bi. ma présenté ko sëriñ Fallou. sëriñ bi ni ko ni ma waaw kii mooy kan ma ne ko kii de américain day jàngale ci Amérique. ne waaw kii mooy kan ma ne ko ah kii de professeur américain la day jàngale ci Amérique. day jàngale économie. day jàngale économie. comme man. comme man. loolu moo tax nu xaritoo. loolu moo moo waral nu xaritoo. ba pare moom mu nekk nag spécialiste Afrique. ba pare nag moom mu nekk professeur boobu américain boobu spécialiste Afrique. Sëriñ ni ma ne ko ñoom murit lañu. Sëriñ Fallu ne ko ñoom ñooñu ay murit lañu. wax ko ne ko ay murit lañu. ñoom ñooñu ay murit lañu américain yi. ma ne ko ah sëñ bi nee na yéen ay murit ngeen. nee na ma ko ah man de li ma jaaxal yow sëñ bi daal nee na yéen ay murit ngeen yéen américain yi. mu ne man américain la lu tax ma nekk murit mu ne ko ah, man americain la lan moo waral ma nekk murit ma wax ko sëriñ bi nee na ma wax sëriñ Fallou loolu sëriñ ni ma ñoom liggéeykat lañu sëriñ Fallou ne ma ñoom ay liggéeykat lañu te kuy liggéeykat rek te kuy liggéeykat rek yaa ngi ci yoonu murit yaa ngi ci yoonu murit <laughs> sëriñ Fallou ko wax loolu waaw te dafa xaw mel na ko te dafa xaw a mel ni que. àddina yëpp li ciy dox. àddina yëpp li ciy dox. waxuma Sénégal rek. waxuma Sénégal rek. addina yëpp laay wax. addina yëpp laay wax. dama bind ci benn téere. dama bind ci benn téere. ma ne Afrique. ma ne Afrique. bu ñu toppoon yoonu Sëriñ Touba bi. bu ñu toppoon yoonu Sëriñ tuubaa nëga ni dana fekk ñu sori lool ba dab tubaab yi dana fekk ñu sori lool ba tubaab ndax li ñu sëriñ tubaa jàngal ndax li ñu sëriñ tubaa jàngal wéer ko ci li yàlla sunu wax wéer ko ci li yàlla sunu borom wax ñaan leen ñaan leen ma may leen sëñ tubaa jàngal nu jàngal nu liggéey liggéey liggéey ci topp yàlla la bokk liggéey ci topp yàlla la bokk ñu nekk ci loolu. ñu nekk ci loolu. loolu nag dama bind ni ku ko am ci réew. loolu nag dama bind ne képp ku ko am ci réew. réew moo xam ne da am nit yoo xam ne dañuy liggéey. réew moo xam ni da am nit ñoo xam ne dañuy liggéey. te mën nañoo liggéey te duñu fayu dara. te mën nañoo liggéey te duñu fayu dara liggéeyal réew mi rek. liggéeyal réew mi rek. réew mu am loolu. réew mu am loolu. am nga am nga lu ne. ma ci téere boobu dafa xaw a mel na nee na téere boobu dafa xaw a mel ni alal joo xam ne dañu gas suuf dugal ko ci alal joo xam ni dañoo gas suuf dugal ko ci suul ko ci te xamuñu ko woon te xamuñu ko woon Cheikh Ahmad Bamba nag moomu woon ni Cheikh Ahmadou Bamba nag moom woon ni bu ngeen toppee di liggéey bu ngeen toppee di liggéey alal jooju la di ngeen ko jot alal jooju da ngeen ci jot mu jëriñ leen mu jëriñ leen lu jiitu pétrole bi ci la bokk pétrole bi ci la bokk. nee na lu jiitu pétrole bi sax ci la bokk. pétrole. kenn xamul fu mu mën a ne. kenn xamul fu mu mën a ne. kenn xamul it li tax yàlla def ko ci bërëb. kenn xamul it li tax yàlla sunu borom def ko ci bërëb. am nañu nag ay machine appareil yoo xam ne ak avion. am nañu nag ay machine ak i appareil yoo xam ne ak i avion. bu ñu ko seetee. bu ñu ko seetee. satellite yi. ci satelite yi. danañu mën a photographier suuf si. danañ mën a fotografie suuf si. ba xam li fi ne lan la. ba xam li fi ne ci biir lan la. waaye loolu yóbbuwu fa boppam. waaye loolu yóbbuwu fa boppam. yàlla nag moom mooy seet ci kattanam. yàlla sunu boroom nag moom mooy seet ci kattanam. fii ma def fi lii fii ma def fi lii fii ma def ma def fi lii fii ma def lii. bind naa ci 1958. 58 ci sama thèse. bind naa 1958 ci sama thèse. ni la doctrine économique du mouridisme. ni la doctrine économique du mouridisme. c'est une richesse cachée dans un pays pauvre. c'est une richesse cachée dans un pays pauvre. ma ne bu fekkoonte ne Afrique yëpp dañu topp mu ni bu fekkoonte ne africain yëpp dañoo topp mouridisme dana fekk Afrique sore lool dana fekk Afrique sore lool ndax ñun li ngeen nu jàngal ndax ñun li ngeen nu jàngal mooy liggéey mooy liggéey rek te àddina dara newu fi lu dul liggéey te àddina dara newu fi lu dul liggéey ak gëstu ak gëstu nag gëstu nag man nga trouvé dara mën ngaa bañ a trouvé. mën ngaa trouvé dara comme mën ngaa bañ a. yàlla booy gësu booy gëstu yàlla moo xam lu mu lay won. yàlla moo xam la mu lay won. ci nameelam. Einstein nga xam ni dañu dañu jàpp ni moo fi ëpp xel. waaw yëg-yëg yi nga xam dañoo jàpp ne ñoo fi ëpp xel. Einstein. Ah, Einstein Einstein waaw Einstein waaw borom xam-xam bu mag la du woon ab allemand. moo wax ni. sama formule bi may wax ñëpp di ko yéem. moo wax ne sama formule bi nga xam ne moom laa def wax ñëpp di ko yéem. muy E égale mc muy E égale MC2. énergie. énergie égale masse. égale masse. que multiplier le carré de la vitesse. multiplier par de la vitesse. mu ne calculer wu ma ba agsi ci de. mu ne calculer wu ma ba ak ci de. damaa jékki-jékki rek gis ko. damaa jékki-jékki rek suñu borom sol ma ko. yàlla sol ma ko. waaw ma daal di ko bind. ma ko bind. te formule boobu. te formil boobu. moo tax. moo tax. américains yi. américains yi ak russe yi. russe yi ak chinois yi. chinois yi. ñuy mën a defar ay machines yoo xam ni. ñuy mën a defar machines yoo xam ni di dem ba ca weer wa. di dem ba ca weer wa. ba ca ca gannaaw weer wa. ba loi boobu. loi boobu. mooy mooy régir maanaam moo nekk ci diggante. lu ne ci àddina roi boobu mooy kenu lépp lu nekk ci àdduna te kooku yàllaa ko ko won te kooku suñu borom moo ko ko won yàlla mënoon na ko won keneen yàlla mënoon na ko won keneen waaye moom la ko won waaye moom la ko won waaye xam-xam yemul ci ci boobu waaye xam-xam yemul rekk nag ci loi boobu am na yeneen yu bare yoo xam ni it am na yeneen yu bari it yoo xam ni ñi ko gis ñi ko gis te ñu di ko jëfandikoo. te nit di ko jëfandikoo. ñoom itam dañoo yàlla moo leen ko. sol rek ñoom it suñu borom rek moo leen ko woon ci kàttanu boobu. Euh, c'est vrai dëgg la nag ni. découverte yooyu. découverte yooyu yooyu ñu gis. Afrique. Afrique. bare ci. Afrique bari la wu ci. sunu Afrique bi. sunu Afrique gii. waaye am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jëfandiku léegi. waaye am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy. jëfandiku ci Afrique la gii la la bawoo. waaye dafa xaw a mel na mu am jamono boo xam ne dañu koo fàtte. waaye nag dafa am jamono boo xam ne dafa mel ni dañu ko fàtte dafa mel na. dafa xaw a mel ni dañoo fàtte xam-xam boobu dañoo fàtte xam boobu. te tubaab yi di ko jëfandikoo fi mu ne. tubaab yi ñoom di ko jëfandikoo ñoom nangu nañu ni sax nangu nañu ni. ñoom nangu nañu ni. lu bare lu ñuy jëfandikoo ci xam-xam. lu bari lu ñuy jëfandikoo ci xam-xam. mu nga jóge ca Égypte. mu nga jóge ca Égypte. Égypte ci Afrique la ne. te Égypte ci biir Afrique la ne. te Égypte ña fa dëkkoon nit ñu ñuul lañu. te Égypte googu it ña fa dëkkoon nit ñu ñuul lañu. ñëpp xam na civilisation égyptienne. waaw civilisation égyptienne ñëpp xam nañu. moo jiitu civilisation grecque. moo jiitu civilisation grecque yi savant yi dañu daan dem di jàngi Égypte. te grec yi savant yi dañu daan dem ñoom sax di jàngi. grec bu. romain yi dañ fa daan dem di jàngi. romain yi dañ daan ñëpp di fa nit ñu ñuul lañu. te nit ñu ko nag ci kaw lu ma neex. nee ko ci kaw rek nag lu ma neex. Cheikh Anta bind na ko. Cheikh Anta Diop bind na ko. tubaab yi contesté ko. tubaab yi ci boppam euh, dàq ko. ni ko loolu mënuñu koo nangu. ni ko loolu nun mënuñu koo nangu. pourtant wane na ni. te moo ne wane na ni. ñooñu ay nit ñu ñuul lañu. ñooñu ay nit ñu ñuul lañu borom der yu ñuul. boobu ba tey nag ñuy xeex loolu. boobu ba tey ñu. égyptiens yi. seeni buur seeni buur. amoon na ci ñu ñuul. amoon na ci ñu ñuul. alors que dañu naan benn bu ñuul amu foofu. dañoo dàqoon loolu ne benn bu ñuul nit ñu amu foofu. kon euh, ñuul. kenn kenn jiitu ko ci xam-xam. kon nag nit ñi ñuul ñi kenn jiituwu leen ci xam-xam. nag mooy gëstu. xam-xam nag mooy gëstu. léegi boo seetee brevet yi. léegi boo seetloo brevet yi. Amérique. Amérique. yu ci bare ay nit ñu ñuul la ko inventé. yu ci bari ay nit ñu ñuul ñoo ko inventé ñoo ko xalaat gëstu ko. ñoo ko xalaat. Mhm. waaye ci tàngu esclavage. waaye ci jamono dañuy jàpp njaam njaayum jaam. bu jaam bi trouvé dara. bu jaam bi trouvé dara. brevet bi brevet ba. ñu askanale ko ki moom jaam bi moom moom moom la koy bind. ñu askanale ko kawax wax ne moom mooy borom jaam ba. am na lu bare yu ñu inventé ñu naan jiwu ko def jiwu ko def fekk moom la. fekk jàmba moo ko turóon am na lu bëree baree bëri ñu jàpp ne mënoon mënoon naa fi toog yi waxtu mën naa fi toog ay waxtu di leen wax yoo xam ni leen wax yoo xam ni ay nit ñu ñuul ñoo ko turóon ay nit ñu ñuul ci boppam la yàlla jagleen nit ñu ñuul Afrique nit ñu ñuul Afrique am na lu ñu turé am na lu ñu turé waaye nit ñu ñuul Amérique waaye nit ñu ñuul ñi ca Amérique moo ëpp la ñu moo ëpp moo tax moo tax damaa am mouvement boo xam ni damaa am mouvement boo xam ni dama ko bëgg a lancer ci xale yi. dama ko bëgg a ci xale yi. pour habituer leen ñuy gëstu. waaw pour que ñoom habitude di gëstu. bu ñu amee bu ñu inventé dara rek. bu ñu demee ba inventé dara rek. man maa leen koy brevetel. moom ci boppam moo leen koy brevetel. ngir ñëpp kenn du ko mën a imiter. nga xam ne kenn du ko mën a toppandoo. ku ko bëgg a soxla ku ko bëgg a ku ko bëgg a soxla da am looy fay. bëgg cee jaruñ it danga am loo fay. brevet nag ku ko am xaalis la. brevet nag ku ko am. xaalis la. foofu mouvement boobu ma bëgg a lancer. mouvement boobu nga xam dama ko bëgg a lancer. pour xale yi. pour xale yi. li ma ci namm moo di. li ma ci namm moo di. fexe ba xale yi. fexe ba xale yi. mënal seen bopp. mënal seen bopp. am liggéey am liggéey. au lieu di toog ñu jox leen liggéey. au lieu ñu toog ñu di leen jox ñu. danaa leen wan nañu mën a def ñoom. dana leen wan ñoom ñoo ñu mën a def pour mën defar defar seen liggéey. ba def seen liggéeyu bopp. duñu man lépp nag. duñ man lépp nag. waaye di nga mën a liggéey loo xam ni. waaye da mën a liggéey loo xam ni. di nga ci mën a dund. da ci mën a jëriñu dund ci. sëriñ bi. sëriñ bi. tey li ma fi indi. tey li ma fi indi. mooy siyaare la. mooy siyaare la. gërëm la. gërëm la. indi la sama sama ngërëmu doom. indil la it sama ngërëmul doom. sa taalibe di sa taalibe. ni ma nee sa taalibe ni mu nekk moom it sa taalibe ma nekk taalibe sëriñ saaliw mu nekk taalibe sëriñ saaliw mu jóge fi ma jébbalu ci yow mu jóge fi mu jébbalu ci yow mi ngi ci jàmm nag mi ngi ci jàmm nag tey jii jokkoon nañu ñaar yoon wala ñetti yoon tey jii jokkoon nañu ñaari yoon ba ci ñetti yoon euh, sëriñ bi sëriñ bi dafa am liggéey yu ma bëgg a liggéey. dafa am liggéey yu ma bëgg a liggéey. ma di ci laaj sa ndigal. ma di ci sàkku sa ndigal. boo ma nee digal naa la loolu. boo ma nee jox naa la ci ndigal rek. ma daal di ci jublu léegi. mu daal di ciy jublu léegi. bi ci jiitu. bi ci moo di Touba. moo di Touba. ni mu sonnee ci ndox. ni mu sonnee ci mbiri ndox. surtout màggal. surtout nag bési màggal. ñépp dégg na sa kàddu. ñëpp dégg nañ sa kàddu ñun ñii ñëpp. ñun ñii ñëpp. xam nañ ni màggal. xam nañ ni màggal. problème ndax ndox mi. problème mu ndox dëgg dëgg da ci am. bi ma nekkee président. bi mu nekkee président. juróom fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar. ah daanaa góorgóorlu di ci def lu ma ci man nee na góor góorgóorlu di ci def lu ma ci man waaye léegi nag. waaye léegi nag. dama bëgg def loo xam ni weesu na loolu. dama bëgg nag def loo xam ni ci wàllu ndox weesu na loolu. weesu na li ma daan def. weesu na li ma daan def. ak li ñuy def fii mooy. ak li ñuy def ci jamono yii ci wàllu ndoxum Touba. li wax ni. li sëriñ Touba wax ni. bés dana ñëw. bés dana ñëw. ba ndox muy dama koo dégg de. Mm-hmm. démb sax dama. sama benn sëriñ indil ma bindal ma ko xam naa ni mi ci sama kayit yi ñi dana bés dana mës a ñëw bés dana mës a ñëw ba ndox di walwali Touba ba ndox di walwali Touba mu bare ndox mu baree bari di walwali Touba ci matlaw kaw Zeyni ci Touba te loolu ba tey gisuñu wuñu ko te loolu ba léegi ci saayir gisaguñu ko ma bëggoon nag sëñ bi ma bëggoon nag sëñ bi nga may ma nga may ma ndigal nga may ma ndigal man ma nekk taalibe bi réalisé man ma nekk taalibe bi nga xam ne ci sama loxo la loolu di antoo ndigal rek laa ci soxla ndigal rek laaj ci soxla ngir ndox mi walwali ci Tuuba soxlawuma leneen soxlawuma leneen lépp lépp maa koy xalaat maa koy xalaat ba indi ba indi ndox ma pour que affaire ndox ngir mbiri ndox baña te nekk problème baña te nekk problème ci Tuuba ak li ko wër sax nun murit xam nañu ni. nun murit xam nañu ni. li xadimu rasul gis ba wax ko. li li cheikhul gis ba wax ko. lu mën a am la. lu mën a am la. kañ lay am kañ. kañ lay am kay. man nag dama ko bëgg def. waaw lool nag laa bëgg a def. ndigal rek laa ci ndigal rek nag laa ci laa ci sàkk. man fi ma nekk weesu naa di campagne. nee na fi ma nekk man weesu naa ndigal rek. waaye danaa la. waaye nag danaa leeral. leeral. leeral mbokku taalibe yi. leeral mbokki taalibe yi. lii ma wax ni li ma wax nii. naka laa koy defe naka laa koy defe jox naa la problème tuubaa nga ne ma jox naa la problème mu Touba. góorgóorlu ba ndox dootu fi ñàkk. góor góor lu rekk ba ndox dootu fi ñàkk. bu soobee yàlla ma jublu ci léegi. bu soobee yàlla ma jublu ci léegi. bi may ñëw fii. nee na bi may ñëw fii. ma gis ci autoroute bi. ma gis ci autoroute bi. da ngay xool ba fu sa bët mën da ngay xool ba fa sa bët mën a ngay gis ay garab nii rek. dangay gis ay garab nii rek. waaye benn euh, mbay newu fa. benn meññeef ni luy sax meññeef. luy sax. dara da ngay xool doo gis dara. dangay xool doo gis dara. ma bëgg nag. mu bëgg nag foofu tam foofu foofu tam nga jox ma fi ndigal nga jox ma fi ndigal ma bay ko yëpp ma bay ko lépp ba boo jógee fa illaa a commencé ba fii ba foo mën a jógee ba fii foo xool dafay weer foo xool day wert ak gàncax ñu di fa jëmbat di fa di fa di fa ji di fa jëmbat lu ñuy lekk rek lépp lu ñuy jariñoo rek xam nga man ci sama bopp sax damaa jaaxle. nee man ci sama bopp sax damaa jaaxle. parce que ba ma amee xalaatu xale yi. ndax ba ma amee xalaat ci xale yi. pour yóbbu leen def leen ci ay ferme ngir yóbbu leen def leen ci ay tool yu mag ay ferme yàgg na yàgg na. waaye ilaa Touba bii. waaye ilaa Touba bii. dafa nekk. autoroute boo xam ni. day yombal la ma xalaatoon. dafa nekk autoroute boo xam ni day yombal la ma xalaatoon. man maa ngi bëggoon a commencer ci Linguère Matam. nee na mi ngi bëggoon a tàmbali ci lim. ci Linguère Matam. ndax boo bayee itam il faut nga am oto yoo ko yëpp mu dem. ndax boo bayee faaw nga am oto yoo ko mën a yëpp fa ñu koy jaayee wala ci port wala ci aéroport ñu exporté ko. wala port mbaa aéroport ngir jàllale meññeef mi. léegi nag. léegi nag yàlla def na Ila Touba bi. yàlla def na Ila Touba bi. yàlla ak xadimu rasul. yàlla ak xadimu rasul. foofu dama damaa bëgg nga jox ma fi ndigal. damaa bëgg foofu nga jox ma fi ndigal. ni ma suuf saa ngoog bayal. ni ma daal suufa ngoog rek bayal. li mag ma nar a bay. li nga xam daal moom laa nar a bay lépp ngi ci biir. lépp a ngi ci biir. kii nag dix hectares la fukki hectares. bii nag ma indi ci masala moom fukki hectares la. dama ko fi bàyyi sëriñ bi. waaw